te gis nga lii dinaa ko toog ba mu jeex merci maître loolu rekk laa soxla woon waaw bul ma merseegum léegi yow ku ñuy dimbali muy nëbbatu ki koy dimbali waaye bëgg naa nga jàppale ma te nga comprendre. ma comprendre mais comprendre ci lan nan nga ma mën a waxee lu dul dëgg te boobu ba léegi maa ngi jéem a régler sa problème yow ak ñi lay topp. ñan ñoo may topp. Maïmouna calme-toi calme-toi dalal maa ngi jéggalu bu baax ci coono yi ma a teg te maa ngi lay promettre ni yow promettre lan parce que dañuy yaakaar ni maa ngi gagné samay procès rek lu ne ma dugg ci <laughs> mais fii lu fi jar rek dalal maître dalal dinaa la dimbali. yow dimbali yow est-ce que ça yow kan ngay dimbali. maa ngi ci jàmm te dinaa la wax li fi xewoon dëgg dëgg dëgg. soxlawuma xam li fi xewoon. ana xaalis bi xaalis bi laa wax ana man de damaa ragal ba léegi ragal yow mii lañu war a ragal te yow sax sa kole gi lan lañu gis ci yow ba tànn la xanaa du yow yaa waxoon ne sama kaa dafa garaaw te li ma ragaloon sax ñu def sama famille dara polis dina def li mu war a def te yow sa sœur ba ak criminel ya mu àndaloon ñaawteef ya ñu defoon dinañ wuy ji yoon waaye su ma la waxee dëgg est-ce que di nga dimbali sama waa famille loolu de man maa koy dogal ndaxte da ngeen def ay infraction yoo xamante ni yoon du ko bàyyi noonu. way yàqu naa way naa. loolu xamoo ko woon wax ma dëgg ji ndax nga am chance ñu wàññi daani. ok maître kon xaaral ma wax la dëgg bi allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam soxna si. ça va sëñ bi naka def. sant rek maa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm bu baax. sant bi naka suba gi. ça va. waaw alhamdulilah. dama bëgg a xam ne moom moo boole ci yow. ok. mu ne ma da ngeen di ci wàllu kii pour voyager. Mm-hmm. liggéey la quoi bon en fait benn agence de voyage la ñu ci wàllu voyage voilà donc xam naa ni moom bu ñu jàppante moom dinañ mën a a liggéeyal selon sa bëgg-bëgg liggéey bu mucc ayib waaw teg la ci yoon bu nga xam ni doo am dara doo doo ci am benn problème voilà donc de ce fait que euh, da rek bu la neex. soo amee temps après nga jaar boo jaaree boo ñëwee incha allah après di gën a mën a waxtaan. voilà. man kay aw ma toogaay. Mhm. man aw ma toogaay ndax euh, li may lijjanti daf ma yitte lool sax soxla naa ko lool. waaw ci bu gaaw. Mhm. léegi ma bëggoon xam tuuti seen bureau bi fan la nekk. waaw en fait doo suñu bureau bi moo ngi rond point Zadig. Mhm. mooy fi arrêt deux bi di taxaw. waaw bu fekkee yegg si nga ba foofu noonu. man boo ma woowee sax après mu nga ñëw jël si la. waaw d'accord maa ngi maa ngi ñëw léegi léegi léegi nii. ah ok d'accord tout à l'heure maa ngi lay xaar. merci beaucoup merci beaucoup bonne maa ngi nii gis naa la gis naa la ay eh, maa ngi nii maa ngi nii man maa taxaw nii maa ngi taal loxo nii man maa sol costume bu bleu bi casquette yi xoola maa ngi nii maa ngi nii waaw mën nga ah, ok d'accord d'accord

parce que bu boobaa da dañ bon dañ lay envoyé invitation rek nga xam ni man damay mën a traité dossier bi mu gaaw. mais mënuñu def beneen solution boo xamante ni mën naa dem te ñoom duñ ci xam dara parce que samay mbir moom bëgguma leen ci dugal. waaw ah, ok bëggoo ñu yëpp ko quoi. waaw ñu yëpp ko. ah pourquoi. xam nga am problème ak sama famille nekk foofu. déedéet sax. déedéet sax dama leen bëggoon defal surprise. ah ok xam nga ñoom bu ñu ko yëgee ñi nekk fii aussi dañ koy yëg. ah ok kon da nga bëgg mu da bëgg a dem ci sutura quoi. Mm-hmm. Ah, ok ah mais bu boobaa kon njëg li day gën a seer. Hmm. ah wax ma njëg bi ñaata la rek ma mën a xam. Ah, njëg bi moom amul problème mën nañ mën nañ avancer toppatoo dossier ba pare. Ah. après loolu moom amul problème. léegi. damaa bëggoon xam njëg mi ñaata la ndax àttan naa ko walla déet. kon du yow quinze millions. lan xanaa da ngay jeexal. non soxna si daal comme que yow bëggoo sa membre famille yëg ko moo tax montant bi day yëg. léegi sama membre famille lu ñu ci ba muy cher. soxna si dal man maa lay utal ku invité te ki ma ki lay invité compte bancaire am la ñu te loolu lu mu dee dee rek mhm. dina ci dépenser sept millions. léegi loolu bu ma ko joxee dinaa ci yokkaat huit millions. bu la neexee laajte même ki moom ki ma mettre rapport ak yow ci même ci même prix bi laa bu la neexee laajte. non non loolu yoruma ko nii te li ma yor nii dama la ko bëggoon jox liquide comme ça semaine prochaine ma mun a jot sama li ma soxla sama papier. loolu du mën a nekk parce que procédure bi. deux mois lay ju lay lay durer li mën a nekk daal mooy nga nga joxe onze millions yi ñu commencé procédure bi boo yeggee Paris deux millions yi ci des nga joxe ko loolu daal mën na nekk ci gàttal. léegi xam nga nu ñuy def mm-hmm. neuf millions yi ma yor daal mën naa la ko jox après li ci des mm-hmm. ñu door ko montrer. ah ok. kon léegi dama may ma dem ci tool maa ngi ñëw waaw. Ah, ok may jégalu de soxla si. ah ok kon xaaral ma jox la xaalis bi. non non non lu def nii non. du te du xaalis bi laa lay jox. non lépp lu gis dafa am yoon. xaaral ma jox la numéro compte bancaire bi nga jël ko yóbbu ko banque lépp lu gis dafa am sérieux waaw. donc numéro compte bancaire boobu day jël dem déposé ko sama compte bancaire bi xaalis léegi après ñoom dinañ la defal benn ah ok dinaa ko def kon ni nga ko waxee. ok sinon yan document laay indi pour affaire wu. yow lan nga ma teg. ah da ngay yaakaar ne benn poupée bu ñu foree fee ci canal yi def ko abokat yow mayoo ma ma expliqué la histoire bi yépp yow ban histoire neewuma la woon fii bu ma fi waxati benn waxi histoire xam nga lu ma bëgg mooy nga wax ma xaalis bi fan la nekk. te du loola laa nekk di la wax nii. déedéet ndax sa histoire bi xam naa lépp te mën naa la ko nettali de A à Z. maître tey ngaa dal ay boo xamoon fi ma jëm. attends xaaral ma àggali la sa histoire. ça va soxna si. ça ah. dama lay laaj. Euh, waaw maa lay déglu. ok ok tur tur tur bon euh, sa sac donne-moi le sac et n'écris pas si tu cries tu es fini donne-moi le sac donne-moi le sac. chut n'écris pas chut good girl allez commence à marcher. Commence à avancer là-bas, là-bas, là-bas, avance là-bas, vite. Hé, hey, bouc, oh, bouc, bouclier. Accord, d'accord loolu nga ma bëggoon a wax danga ma bëggoon gëmloo sa xalaatu bopp yokk ci nag bi sa waay demee ci toilette dafa woo ay wuyu raison pour laquelle mu ni la woon pour nga dem bànk